sa sa tur bi dafa bëri ay sant nag honorable <laughs> euh, par rapport ak situation clandestine clandestine yi nga xam clandestin yi nga xam ne ñu ngi dee chaque jour ci géej gi. man je me désole même. Hmm. Euh, situation bi nii je pense que ñun balaa ñuy am bac sax fekk na mu am. di masawu encore une fois dañuy continuer encore di masawu malheureusement parce que lii jeexagul. pour yow jeexagul. non non non jeexagul ñuy masawu waajur yi di ñaanal xale yi nga xam ne parce que ay xale lañ ñiy dem. peut-être am na ay mag mais li ci ëpp ay xale lañ mais su ma déggee tour de table bi ñu def honorable def ko Alioune def ko ak Ceddo dafay mel ni comme si Sénégal tey la commencé dafay mel ni comme si Sénégal tey la nit yi am espoir je suis désolée quand le président Wade disait soppi soppi ñu koy jox nguur gi ñun on était au collège suñuy mag yi nga xam ne ñoo ñu magoon mën a voté ñooñu dañu jàppoon ne ak maître Wade foofu la réew mi doon neexee ba faaw. ku nekk ak sa génération ku nekk ak sa tolluwaay ku nekk ak sa espoir. Mhm. tey pourtant maître Wade bi mu ñëwee la mu mën def na ko ci réew mi te sénégalais yépp xam nañ ni le président Abdoulaye Wade def na ci réew mi. quand le président Macky Sall mon mentor et responsable politique est venu en 2012 yaakaar naa ni ku xamoon Sénégal en 2012 ba Sénégal 2024 xam nga ni am na ay ay ay yoo xam ne am na ci réew mi mais gis nga la question de la jeunesse. la question de l'immigration irrégulière loolu du président de la République moo koy régler je suis désolé ku koy régler loolu c'est à la base c'est la famille d'abord c'est l'éducation dafa am loo xam ni ñi rëcc ba pare rëcc nañ ñooñu kenn mënatu leen récupérer ki xas ba am dix 18 ans non kooku je pense que état mënatul def lu koy téye ci réew mi li koy téye ci réew mi fameem moo koy commencé depuis mu am cinq ans tout à l'heure Alioune parlait des yoo xam ni dañoo maanaam amuñu espoir ba jënn réew mi di dem mhm. mais ñii jënn réew mi di dem dañuy fay lebaluñ kenn mayuñu kenn ñii jënn réew mi lu ndaw ndaw boo dugg gaal di nga joxe 400000 francs 600 mhm. kay déggoo de cent 400000 francs te 400000 boo ko jëlee dem jëndi euh, marché Sandaga di nga am loo loo tab en plus mbay bii ñuy wax mais mbay mi dañ cee dugal xaalis le président Wade daf ci dugal xaalis le président Macky Sall dugal ci xaalis mais xale yi ñoo bañ ni ndakaaru gii nga xam ne fi la Seydina Limaam wootee du ñu fi jénn fii la ñuy toog kenn du dellu ci tool yi na jomaay nii xale yi nañ dellu ci tool yi si lañ koy bàyyiwee jomaay bis bu leen nee dellu leen ci tool yi ngeen bàyyi ngeen bàyyi ndakaaru gii ngeen nekk ñoom fii lañ ñëw pour dajale lu ñu mën a duggee ci gaal yi kenn mënul jénn seen xel dugg ci gaal yi xam ñan lañ mën a tere ñu dugg ci gaal yi pour le moment mooy xale yi doog a commencé ñoo dugal ko ci biir curricula bi nga xam ne moom moo nekk ci biir école yi dugal ko ci enseignement bi conscientiser leen ba nga xam ne dañuy xam ni pour nga mën a defar sa réew da ngay toog te mën nga toog ci sa réew nga tekkee fi temps Abdou Diouf mënoon nga toog Sénégal nga tekkee fi am na ñu doon immigré ji temps mu président Abdoulaye Wade am na ñu doon ñu mënoon toog nit ñi mënoon loon toog ci réew mi tekkee fi pourtant dañ doon jénn di immigré temps président Macky Sall waxaalewu ma ko moom mi créé 3FPT pour ñu former les jeunes financé leen accompagner leen moom mi créé DER bi nga xam ne tey jii moom la ñuy tiitaroo pour ñu mën a financer former parce que avant que ngay financer nit il faut que la personne ait une éducation financière d'abord mm-hmm. nga former ko mu am métier nga dog ko jox xaalis mu dem liggéey moom mi créer FONGIP créer FONSIS créer leneen rek leneen tout ça pour accompagner mais l'accompagnement dafa li mu élément yi mu regroupé dafa bëri y la formation de y a l'éducation financière de dans mais aussi y a le, le, le financement dedans mm-hmm. kon loolu noonu yëpp bu te te tereewul jeunes yi ñu ngi jël sax ci financement yooyu di ko faye ji pour dem Nicaragua mën ngaa lebal nit léegi 5 millions pour mu liggéey mu dem fay 4 millions yi dem Nicaragua. waaw c'est vrai y en a qui font ça. non am na man maay wax. j'ai fait 11 ans aux impôts. ñii nekk ci réew mi tey jii samay collègues lañu woon Basirou bu daan añ daf may wan ginnaaw ma toog nii mu toog nii muy añ may añ. il est devenu le président de la République du Sénégal. Quand j'ai quitté la direction générale des impôts, je suis allée au fonds de garantie des investissements prioritaires comme directrice de l'informatique. réew mi li fi nekk xam nañ ko ñëwuñu rek tab bi ci politique dañoo am suñu cursus ñu jaar ci xam li réew mi di dox politiquement mais tamit xam li administration bi di mhm. dox. kon xam nañ beneen question bi kon yow laa koy ubbee sa xarit boobu dafa tàmbali set setal samedi bu jot suba Ousmane Sonko Elimani jëwriñ mooy dem Ndar. loolu euh, baax na. waaw cleaning euh, day président Macky Sall moo ko fi indi. waaw lu baax dañ koy continuer dañ koy perpétuer. loolu président Macky Sall moo ko créé. cleaning day. waaw ah Pape Sidi dina. ko def sama waa ji moom xam nga ni Sall ngaari wax <laughs> dëgg neex yàlla. lu baax ci réew mi moom. Uh-huh. teg na ci loxaam. waaw moo tax nii nii ñuy doxalee nii nii nii Diomaye di doxalee président Diomaye di doxalee wax dëgg neex yàlla muy continuer PSE bi di dox. BRT bi di daw TER bi di daw nit ñi nekk ci jàmm wax dëgg neex yàlla man li ma ciy teg mooy parents yi nañu gën a téye démission bi dafa bëri qu'on se dise la vérité uh-huh. état mënuñu ko jël ñu yan ko lépp bu ñu ko yaakaaree ci pétrole bi foo pas que ñu créer kii vend nekk ay vendeur d'illusion uh-huh. nekkul ni pétrole beeg gaz bi day ñëw rek nit ñi dañuy toog lépp day dox de non non non du demee noonu de jomaay mënu ko son premier ministre mënu ko keneen gouvernement am mënu ko uh-huh. il faut que nit ñi dem jàngi soo jàngulee école ba am ay diplôme mun a former wu am une qualification nga dem jàngi métier soo jàngee métier nga am liggéey naa nag les ressource naturelles yi nga xam ni moom la ñuy nu mu tuddee di andi loolu noonu day dolleeku ci li nga xam ne mooy panier ménager bi parce que day permettre état mu mun a def yenn subvention yi ba nga xam ne soo amee sa xaalis boo daan dépassé 5000 francs dépensé 5000 nga mën a dépensé 3000 denc 2000 yi épargné ko à la banque. Ah, loolu la de mais nekkul ni pétrole ak gaz bi comme ni ko Alioune di waxee ni am nañ pétrole léegi am nañ gaz jub jubal jubbanti jub jubal jubbanti googu. Uh-huh. président Macky Sall moom moo ko fi jiite moom m ni une gestion sobre et vertueuse. waaw c'est en français lii en wolof. waaw waaw léegi honorable loolu dong honorable am na am na am na am na loo xam ne damay dégg ñenn ci ñi bokk ak yéen euh, APR di ko wax naan euh, cli euh, mooy set setal bi ñuy organiser chaque samedi. Mhm. yow nga woowee ko ne cleaning day la ko président Macky Sall. le premier samedi de chaque le premier samedi de chaque mois. maintenant dafa damay dégg ñoo xam ne dañu bokk ak yéen mais dañ naan non li Diomaye di def président Diomaye li mu def daf ko sàccee ci Paul Kagame. mais c'est quelque chose de bien. loolu baax na. non Paul Kagame ba dëkkam réew réewul xam nga man j'ai dem naa Rwanda. waaw xam nga sénégalais yi man des fois complexe boobu ñuy am nag loolu la ñuy nourrir suñu jeunes yi ba ñuy jël gaal yi di dem. Mhm. il faut que ñu gëm suñu bopp. Mhm. Rwanda 11000 kilomètres carrés la région de Tamba moo ko ëpp. Hmm? Paul Kagame est là-bas depuis 94 lan la fa Paul Kagame def lu Macky Sall def lu président Macky Sall deful en 12 ans au contraire. Dakar Arena, le président Kagame est venu au Sénégal en, euh, en 2019. Le président Macky Sall dit, dit, dit prêter serment. Mu jël parole moom Paul Kagame j'étais dans la salle mu ni ko monsieur le président euh, Macky Sall avec votre permission est-ce que je peux reproduire ce Dakar Arena à à Kigali au Kigali. ma tuddee ko Kigali Arena président Macky Sall na ni ko avec plaisir barki Seydina Limamou maa ngi woon ci salle bi toog. dëgg ma demee Kigali Kigali Arena boobu fa lañ doon defee. li nga xam ni mooy conférence bi muy women delivery bi nga xam ne si laa demoon monde entier toutes les femmes du monde ñoo fa daje woon ma dem représenter l'Afrique de l'Ouest beneen bi nga xam ni moom mooy le stade Abdoulaye Wade Paul Kagame commencé na ko yàggul récemment maa ngi fa dem dem naa si visit ba ñu ngi en chantier mu nga fa mu ngi koy def en chantier kon pendant ces 30 ans là lan la Kigali bi nga xam ne boo jëlee Tambacounda wala boo Rwanda boo jëlee Tambacounda moo ko ëpp kon xanaa bu président Macky Sall yoroon Kigali kon heure bi romb na foofu nit ñi il faut ñu gëm seen bopp sàccew Diomaye le président bassiru Diomaye amul dara lu muy copier ci biti la mu nar a copier ci biti président Macky Sall installé na ko ba ay moromam di ñëw di def benchmark fii biir Sénégal di jël di yóbbu beneen dañuy ñëw fii di benchmark di yóbbu FONGIP ba ma nekkoon xam naa ci dara impôt ga ma nekkoon xam naa ci dara Sénégal li ñu am ci ay ay borom xam Sénégal li ñu am ci ay doomu aadama yoo xam ne dañuy liggéey dans l' administration kenn xamu leen comme exemple le père Baba jaw bi ñu doon wax tout à l'heure mhm. ay hauts fonctionnaires yoo xam ne c' est des commis de l' état di xëy 7 heures du matin di wàcc 23 heures te kenn déggu leen kenn xamu leen fii ministre yu bëri yu àndoon ak président Macky Sall àndoon ak ab Diouf wala ñu àndoon ak Ablaye Wade 6 heures du matin la ñuy xëy seen bureau balaa ñuy jënd seen bureau yi une heure du matin mais kenn mësu ko dégg président Macky du jënd bureau te 2 heures 4 heures du matin jotul mu xëyaat. quatre heures euh, euh, six heures du matin wala sept heures du matin mu ñëwaat xëyaat bureau wala mu yeewu këram def li muy def. Mhm. neuf heures mu fekkaat ko biir palais. mais cleaning day bi. cleaning day bi ah. moom ah, président Macky Sall premier samedi de chaque mois moo ko créé maintenant pour terminer. Uh-huh. Pape Sidi. waaw sénégalais yi nañ delloo si waat seen xel. Mhm. fii nii xam nga lu fi am. Mhm. ay slogan sénégalais bi nekkoon bërki démb au mois de mars avant président Macky Sall di jël réew mi di ko jox président Bassirou Diomaye même sénégalais yi ñoo fi nekkaat. amul benn changement boo xam ne am na ci diggante bi xanaa quelques personnes yoo xam ne dee nañ ci diggante bi ak quelques personnes yoo xam ne judduwaat nañ ci diggante bi. amul lenn lenn lu fi changé. au contraire li fi amoon dafa wàññeeku parce que 100 jours yi nii je pense que di nga ciy ñëw. dinañ ñëw am nañ bilan 100 jours yi daañu ci ñëw. kon encore une fois wax ñu wax ci ñu wax ci setal bi ñuy def euh, loolu laa foofu laa toll nii. comme xam naa ci sa xalaat ne lu rafet la. lu euh, et puis yow jàpp nga ni xalaatu président Macky Sall la. moom moo ko doon def. donc moo waral set setal national bi nga xam ne le pré le premier ministre l'ami de honorable moom dina dem suba euh, Ndar ba euh, kii maire Ndar. nee na moom Mansour nee na dina ko teertu. il nee na na waa Ndar yëpp génn teertu ko. donc c'est quelque chose de franchement. Euh, beau à voir c'est genre de de discours voilà. nous sommes des républicains waaw di yow kay. ne nii dégg ah. sama collègue bi damay jàpp ni man beneen Macky Sall lay ah. <laughs> ay beneen Macky Sall beneen Macky Sall yi jaar xeer bi non xamoon naa ne xeer bi ma defaralal la man damay yàq ñaari Macky Sall Sénégal mais Macky Sall bi yàq réew mi fii rey askan wi toroxal gor yi du Macky Sall moomu de no sama xarit nag yow moom oh. yow sama xarit <laughs> mais xam nga da di loo xamante ni lu am solo la mhm. uh-huh. <laughs> parce que man c'est la première fois nguuru Macky Sall lan la mu woon lépp kenn mësul dégg sama kàddu ma yëkkati dugal ko ci bi ma déggee